salam nee na def ak coono am ngeen jàmm naka talax-laxi rew mi ah naka rakam rakam yeeg rukum ah sama dëkku maam nak da tere di euh, wax deug yalla fan yi maa fi dégg ay projet euh, projet yu doy war ku nek ak nak sa projet ku nek ak sa projet ngi talax fi di layam layami ku ne nan sama projet bi sama projet bi lega a propos des projets bëggoon naa ñu ci projet parce que nag fan yii ci ginnaaw damaa dégg projet bu mucc ay mbaa kenn yebu leen am ngeen jàmm ma ni mbaa kenn yebu leen avancement de projet yooyu amuñ amul hmm? amul mbaa kenn yebu leen fan yii ci ginnaaw damaa dégg projet bu am bu am jom euh, sunu yaay Mimi na nga def ak coono Touré mbaa kenn yebu la Mimi ah, am nga jàmm Mimi ma ndax am nga jàmm. ah fan yi ci ginaaw dégg naa la nga wax projet bu am jom euh, dama nekkun ci focus ci motax tax ko projet bi nak dama bëggul ñi dik waxtaanat ci projet bi parce que projet baxna projet lu bax la yaay mimi politicien da ngay ami projet ay melni ni bàyyi rek moy projet ku yëkkati projet ga yàqal koko waxul ma kii nit amul projet te ku yëkkati projet mu yàqal koko ça c'est du offensement de projet yaay mimi na nga def ak coono naka tarax la réew mimi turé mimi mbaa kenn yaay booy ndax am nga jàmm naka talax-laxe parrainage am nga parrainage fu mu toll ah di nga am ah ndama nga ci gàccaa nga ci yàlla la yàlla may parrainage rek am nga jàmm mbaa kenn yebu la mimi léegi nag mimi à propos des projets dama dégg fan yee ci ginnaaw projet bu am ful la mami nga projet bu am jom mimi mimi nga projet bu am jom xam nga ne lii daa làqu woon mimi xanaa da ngaa am ay mag yu la jige xanaa da ngaa am mag yu la jige ndax sa projet bi doy na waar léegi nag Mimi euh, damaa bëgg nga ñëw ci projet bi parce que euh, damay faral naan lakkum projet kum wala ya projet ku nekk sa projet ay waaye bàyyi leen askan weeg seeni projet yaay Mimi dikk ci projet bi ñu talax laxi rakkam rakkam projet bi lan la ci la sax. xale yi nga xam ne dañuy xëy di jàngi école. Mhm. bëgg naa ci indi programme mu ndékki à l'école. Mm. lu mën a nekk la. xale bu nee boo xam ne mën dëkki woo sa kër boo ñëwee am fa fondé yaa xam fondé lay doon liggéey ci ak groupement de femmes yi nga xam ne ñoo nekk ca fa wër école bi euh, voilà ñu mën a am fondé am meew am suukar am ci am am au moins kaas <laughs> wuy ba yaay mimi nanga def ba bàyyil nag bu neel da ngaa mën a ataaya ngay fuure lay tànk mimi tudd na nga def ak coono mani bàyyil mimi bu neel la da mën a ataaya ngay fuure la ay yeel yaay bi yaa gën a xam ne fonde noo doxut doxut kon maa déggul woon non maa déggul woon projet bi maa déggul woon yaa mimi euh, ten koo def ay biis ten koo def ay biis parce que réew mi élèves yi ay faqeer lañ yow ku dégg élève rek xam ne dañ koo yor foo dégg réewum élève rek xam ne élève moom dañ koo boot élève yorul faqeer la yoruñu ñu ngi nii di ma seetaat eh yor yor ay faqir ngeen yoro len dañ leen yor kon a propos de ndek à l'école mimi c'est possible c'est possible mais lim doon fondé moma jaaxal parce que da ngay bëgg ñëw ci offensement de fondé manam yaay mi mo la waxe deug yaal tax fondé bi palais la jëm ci wa jairan ak wa batiman bientôt bay Sonko sera candidat il est éligible bay Sonko doit faire la rakam rakamisation aller pour aller au palais kon fondé bi pour palais la léegi à propos de fondé à l'école nañ ko def les bus ndax élèves yi yaay mimi yow xanaa bi ngay bi ngay bi ngay campagne yaay mimi yow wëroo xanaa duxoo yaay mimi dem nga nga sobin yaay mimi est dem nga ñàkku rab hmm? yaay mimi dem nga Joal Fadiouth yaay mimi talax lax nga ba Kaolack est-ce yaay mimi yow mi daa mel ni yéegoo mbooro de surtout mboor yaay mi mi man mbooro laa teg bët élève bu xëy di jàngi maanaam maanaam quinze jours yu ne bàyyam jëndal ko ay dàll quinze jours fukki fana ak juróom yu ne bàyyam dajjal ko dàll yu bees maanaam mbooro laa gisee élève buy xëy di dox cinq kilomètres chaque jour man mbooro laa ko maanaam boo tarax la ba dëkk bu naan Daaru Xudóos man tarax la naa ba gis maanaam élève buy xëy di dox di dox juróomi kilomètres yaay booy est-ce que fonde bi doo ko def ay biis na nga ak yoon wuy ma def koy biis def koy biis xalaat la xel du doy puso la mag da koy far gone da koy far wuy ma bàyyil fonde bi ndax offosement de fonde lay doon wuy ma bàyyil fonde bi def koy biis moyen de transport mais boo bëggee jël ndekki à l'école fonde xale yi dañoo naanati fonde eh, xale yi naanatuñ fonde yaay mimi na def ak ma ni yi naanatuñ fonde yaay mimi ban xale nga gis muy dox wan la nga gis mu naan dag amatul xale boo ci gis muy dox ginnaaw gaa nga nit tàpp comme dàllu carax problème waŋ amuñ amatuñ ko ñoom naanatuñ fonde léegi def koy biis ci fair play parce que sama nit nga def koy biis xel du doy foo jaaroon ni leen fonde la rek jaaraat fa ni leen ay biis la wuy ma yaay mi foo jaaroon ni leen dékkaale ko jaar fa jaaraat fa ni leen dékkaale ko li banaa ko def naa koy biis xel du doy def koy biis mooy de transport ku xëy sa baay jox la gaal foog nga layam layami dem jàngi ah ci mën a bër sa mburu mbaa nga jënd ci ton di waaye eh, fonde ndekki à l'école fonde fonde offensement de fonde hmm? beneen bi ci topp mooy yaay mi mi élèves yi mere nañ la te xamuñu nun la koy wax élèves yi mere nañ la parce que dama recevoir beaucoup d'appels ci problème mu fonde bii kon bàyyil fonde def koy biis élèves yi neen ay biis lañ gën a soxla léegi comme dañoo nekk ci gouvernement boo xam ni ñoom xay na dañoo yor seen kaar tam la pouvoir di ko utiliser di néewal askan wi doole ba pare di ko bàkkoo nag li ma gën a soof ci ñoom moom dañ koy bàkkoo ñuy layam layami jëlal ma bàyyi far farbaak copp sikkin ba jëlal ma bàyyi farbaak ŋaame jëlal ma bàyyi far farbaak bajoor ya nee naa yaay askan wi xamuñu luy pouvoir ñun ñi nekk au pouvoir nekk ci parti Macky Sall APR nekk ci grande majorité présidentielle bi Macky Sall jiite xam nañu luy état état nit ta mbirum bu am doole la pouvoir la mbir la boo xam ne ne waay waay waay sama góor agement su mbay nee na nee na maa ragal état xam nga Baye Farba wolof Njaay day faral di wax naan eh, ko juddoo ci tagar màgge ci tagar ha ah, lu mu am mat laa lay jar ndax minu ko won de lu mu am mat lay jar ndax minu ko won bay Farba bay Farba faqeer ko won da doon pousse ay brouette Farba Ngom ay brouette la doon pousse barki dem dama koy wax bul ma kobas bul ma kobas barki démb yorul dara lu mu am dañ ko yaag moom yam xam nga li li offensement de milliard la lii offensement de milliard la lii man xaw ma ku lay audit man ku lay topp laa xamul Baye Farba Ngom na nga def ak coono mbaa kenn yëbu la am nga jàmm damani ni Baye Farba ah lii foo ko jëlee parce que nag un coupeur de fleurs qui est devenu milliardaire aujourd'hui lëfa ngi ci lëfa ngi ci te je te quelque sos Baye Ali seen wàcc na mooy yaa ngi ciy bajoor yaa ngi ciy ŋaam. parce que lii lii lii lii lii man maa koy audit dinaa ko topp yow xaw ma kañ lay doon mais naa la ma sa plainte yow Baye Farba yow Baye Farba damaa xamul kañ lay doon mais bis dina ñëw tu sa tu vas recevoir mon plainte yow dinaa la ma sa plainte ci gratuite Baye Farba Ngom dinaa la ma xëy plainte ci gratuite ngay layam layami di rakkam rakkami naan ñu pouvoir mooy seen ñàkk xam politique parce que politique Baye Farba ki ko xam dëgg. population ba ñoo ñooy dooley politique ku leen fal ñoo leen fal bi ah bàyyi bàyyi ba bàyyi far ba yow yaa ngi defar yaa ngi def avancement de population li mooy seen ñàkk xam politique kuy fale ñun ñooy fale kuy folle ñun ñooy folle kuy maye doole ñun kuy joxe doole ñun milliards yi nga am grâce à ñun xanaa xamoo sa milliards yi war nga ma ci jox laa la wax. wo oh, yara ya, am naa ci je passé pe dans les milliards parce que bokon na ñu leen woteel bi ngeen a jël réew mi ah kon yow yaay tok fi tay di def avancement de population ci gratuite kon bàyyi farba pour juste wax la ne prépare toi un jour viendra histoire aussi retiendra tu seras dans les ngam don te que ñett fan la yowit nan la ko yut añ non si si c'est sûr et certain Parce que moi, je ne peux pas comprendre un coupeur de fleurs, un pousseur de bret qui est devenu milliardaire. Vraiment, au Sénégal, le ngi fi. nous ko fan ci ay yaay dañ koy pas campagne dox ba rek que <laughs> gu fay da di dampi Far Far ba nga Far ba nga nga am buur nga buur nga jëla buur nga parce que euh, Sénégal lëfa ngi fii euh, je suis désolé bàyyi na mais en l'air oh mais en l'air je suis laissé tomber parce que un coupeur de fleurs un menaceur de carreaux hein eh écoutez-moi attentivement c'est de la vérité un coupeur de fleurs, un menaceur de, de carreaux, un pousseur de brouettes qui est devenu milliardaire. ah maçon yi mere nan la nag man gis naa ci maçon boo xamante ni ba mu juddoo léegi mi ngi poussé ba tey dépense da koy taaba taaba ah maçon yi mere nan bàyyi Farba Ngom euh, dañ la ko rusa wax waaye maa la koy wax maçon yi mere nan la jéppi nan la te bàyyi Farba del bàyyi dox yow képp booy dox del ànd ak ay nit sinon da ngay dox ba ci yàgg rek pel ngay euh, parce que avancement de maçon là. un pousseur de bourrettes qui est devenu milliardaire hein ci diggante bu gàtt 12 ans mais il y a des maçons qui sont là qui sont en train de pousser les bourrettes. à 1960 à nos jours ils n'ont jamais reçu un million bu momal sen Coucou, bopp ku xam donc ça. ah prépare-toi bis dina ñew bay far ba Hmm, may ni di la séen nga nga naan nga ran soxna si maa ngi nii la Ma ngi nah, koy gis ni, ti sera ti sera ti sera servir yow ya bis dina ñew ti sera servir. eh bay bo nga nos de milliards lo ci nos deuyul, lo ci nos deuyul. bientôt voilà ah, na def coono am nga jàmm ah waaye fair play laa woote du samay wax de eh, du samay wax Baye Farba du samay wax de du samay wax nag xam naa la yaa ngi na gaaw ci bu bi dañ ko jëli eh samay wax sénégalais wax eh damay jottali rek mbaa am nga jàmm ah day na waar ndax dëgg yàlla xam naa ni eh, ba ma juddoog léegi xàmme maa ngi ci maçon di ma kuule ci bâtiment ba tey mënumaa xëy 500 millions moo wax saa bopp que mas naa koo am ah pousseur de brouette coupeur de fleur milliardaire la fa nga ci réew désolé mais à l'air bàyyi naa bàyyi naa naa bàyyi naa naa non bàyyi naa eh. bàyyi naa de bàyyi naa man kaane rasul sax dégg